jërë ngeen jëf mbokk auditeur u Afia FM yi euh, ñu dikk ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu jagleel tey jii euh, pàcc bu yaatu jëm ci li nga xam ne campagne euh, aar jigéen ñi di campagne digitale boo xam ne kuréel gi ëmb journaliste yi en santé population et développement moo ko lancé bokk ci AJS ak yeneen i kuréel ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne moo di violence basée sur le genre di violence xeetu métital yoo xam ne ñu ngi ko teg ci ndoddu jigéen ñi rawatina période bii di Covid 19 ñu gis ne ñu bëri dañ ci am dañ ci nekk ay victimes tey jii nag si waxtaan wi ñu fas yéene euh, ànd ak ki nga xam ne moo di madame Nafi Touré di président réseau des femme de Grand Yoff ak madame jabu Touré di présidente également des bàjjanu gox bu Grand Yoff waaye également dinañ ci ànd ak soxna euh, ma jigéen Ndiaye jaawara di sage femme ca euh, Elisabeth bu Golf ñu bàyyi leen rek soxna yi ngeen nuyoo madame Touré ñu ngi fay naa la maam Fatou. Euh, madame Diabou. asalaamaaleykum ñoo ngi leen nuyu maam Fatou. Mm-hmm. Ah, di kontaan ci woo ba ngeen ñëw à chaque fois bu amee lu xew ñu mën ci waxtaane di nuyu nag bàjjenu gox yi nga xam ne ñëpp maa leen représenté au niveau de la commune de Grand asalaamaaleykum wa rahmatullah Fatou maa ngi lay fay di rafetlu invitation bi nuyu sama naataango yi ma fekk ci yi ma bokkal plateau bi maa ngi nuyu auditeur ak auditrise su rajo Afia FM di leen sant di leen ci invitation bi di rafetlu tamit teewaay bi fii merci. Euh, ñu dem déglu témoignage yu benn bàjjanu gox bi jëm ci wàllu violence yi nga xam ne ñu ngi koy teg euh, ci ndoddu jigéen ñi ñëwaat. jigéen kon dox violation bi léegi tam dina am ñoo xamante ne dañoo xuloo xuloo bu métti ba nga gis ñu génnee seen i bagage pour dem loolu yëpp ci waxtaan ñaax sama morom jigéen ñi ñaax sama morom doom yi ak sama naw yi nga xamante ne fenn neexul fépp a yem fenn neexul wax dëgg yàlla bu dee juróomi kaa sax am na fi ñoo xam ne gaañu nañ fi ci say xeex ma yóbbu leen ñu fay bu dee juróomi kaa li ci des ay xeex la rek xeex nag mën na am gàcce mën na am màtt mën na am lu daj ñu ju xeex ñu leen arrange leen ñu toog te uti ndimbal boo ko jàppalee tuuti lu mu tuuti tuuti tuuti sax mën faa toog jàppale loolu te jéem uti lu mu nekk nii kenn amul loo def kenn amul loo jaay fenn amoo fenn foo jaar ndëgëm ñuy sëy ñoo ko mënul am masanaa ñu nekk ndax li lay dal sa biir kër mooy dal keneen ci biir kër yëpp ko ne kër yëpp ko yàlla daal ci sutura daal la ñuy dox au moins weer bii wa àtte naa fi xeex yoo xamante ne sax dañu gaañ ginnaaw bi ñu dégloo témoignage euh, ñëwaat ci waxtaan bi jox kàddu gi madame Touré la présidente maanaam tey jii jigéen ñi ñu ngi dund loo xam ne pratiquement dañu ko doon euh, dund ci pendant des siècles laa mën a wax ay métital yu ñuy teg ci seen dodd mais li ñu gën a nemmee avènement wu euh, Covid 19 bi dafa mel ni métital yi dafa gën a bëri. tey jii boo doon def xayma ci situation jigéen ñi jëm ci métital bi lan ngañ ci mën a wax. boo xam ne amoo ko garabam moom loo koy fajee dafay métti donc muy jaaxle nag ci famille yëpp jaaxle nag ci Sénégal yëpp jaaxle ci àddina bi yëpp ñuy ñaan yàlla mu saafaraal ñu ko ci nu mu gën a gaawee pour mu. jóge fi madame Diabou Touré yow bàjjenu gox nag xam ngaa ne du ñàkk nga am ay exemple yoo xam ne mën ngañ ko jox surtout ci wàllu violence yi ñu gën a nemmeeku euh, métital yi ci jamono ji nga xam ne ñëpp a ngi dund àdduna bi yëpp a ngi dund mbas mi ñu constaté ne jigéen ñi euh, si la ñuy gën a souffrir effectivement maam Fatou masawu jigéen ñëpp rek xam ne covid bi rek coono la métit la Ah, ñu bari ñoo xam ne euh, dañ daan liggéey ci jigéen nga xam ne dañ daan daani seen doole bi que yu méttee ba métti euh, liggéey ñoo doon liggéey sax dañ ko muñu arrêté loolu nag suñ ca boolee di méttital jigéen beneen beneen problème lay doon mm-hmm. beneen problème ndax yow yaa ngi bëgg loo dundale sa njaboot léegi nga tasante góor goo xam ne moom xamul exactement ak ak yelleef bu jigéen xamu ko xamul sax qu'est-ce que c'est une femme qu'est-ce que c'est une xamul kan mooy yaay xamul kan mooy mag parce que damaa defe ne bu fekkee ne yow am nga yaay am nga mag am nga rakk am na loo xam ne waroo ko def te ma gis jigéen ñu bari ñu ngi koy jànkonteel am ñoo xam ne sonn nañ trop. trop trop trop ci moment yi. Mm-hmm. ah xanaa ñaan yàlla rek. parce que dafa am benn tiit mm-hmm. a fexe ba mu génn ci mm-hmm. a metti pour nga wutal ko solution. ñi ci am nga xam ne ñoom am ñi ngi déglu ne ñoo nekk ci côté justice bi di mën a wax seen i xam ne mënuñ koo wax. te ñu ngi koy dund dund bu metti ah di leen masawu rek xam ne yàlla tam mën naa mu teg gi am xëy na peut-être teg boobu mu la teg ëllëg dina a ji waaye metti na loolu mhm. mhm. xam naa ci biir émission bi dinañ gën a ñëwaat ci yenn exemple yi euh, soxna ma mhm. jigéen euh, yow sage femme nga euh, amaana du ñàkk aussi nga am ay parfois ay patientes yoo xam ne dinañ ñëw nga xam ne ñii elles sont victimes de violence mais duñ ko mën a wax xam naa violence yi nag bëri na ay formes mais peut-être physique bi la ñuy ubbee nga jox ñu bu fekkee ne sa xalaat ci wàllu woowu après xam naa dinañ gën a ñëw ci li nga xam ne moo di violence droit sexuel yi nga xam ne gis nañ ne jigéen ñi parfois seen wàll wér-gu-yaram jur sax day menacé wu ci wàll woowu. waa merci Fatou euh, damay rejoindre sama tata bi fu mu daanalee rek. Mhm. parce que nit soo amee sa naqar même soo ko génnee. te fekk ne ñi ngi ko ñi ngi ko génneel mënuñu si mënuñu ko tas dafay nekkaat beneen problème mhm. parfois nga gis daam bu ñëw femme enceinte nga gis ne am na dund na violence physique yow lan ngay mën lu dul conseiller ko consulter ko conseiller ko bu jaree hospitaliser nga hospitaliser ko mesures yi ci war yëpp nga def ko mais am na foo xam ne foofu ngay yem. parce que mënoo koo ne da ngay porter plainte par force d'habitude sax duñu porter plainte. nëpp nëppal lay nekk gaañ-gaañ baa ngi fi métit baa ngi fi donc fu muy mujj ci nëpp nëppal lay mujj donc comme ni ko maman bi waxee léegi su amoon foo xam ne au moins ñoom dinañ am fit ñeme parce que yaa ngi xalaat yow soo demee côté justice nga commencé porte plainte yéeg a ko wàcc bi lan lan la nit ñi di wax lan lan la say dëkkandooy di wax lan la la famille bi nga nekk di wax da ngay obligé bàyyi nëpp nëppal te loolu mën na la gaañ mën na gaañ sa doom donc euh, comme ni ko ma wax waxee am na foo xam ne fa ngay mën a yem mm-hmm. noo topp malade bi ba mu yegg nga ne ko da ngay porter plainte par force wala yow nga dem port plant lan ngay def donc amaana sax yow procédure bi bu ñu ko enclenché yow di nga ci wéet parce que moom même bu décidé porter plainte sa après day bàyyi wala mu wut certificat médical am ba teg yëpp ba pare après day bàyyi mu seet te teewul am na si ñoo xam ne dañ ko tàmm ñoo tàmm door jigéen bi xaw ma vice la xaw ma dañoo feebar xaw ma lan moo leen dal dañ ko tàmm da ngay gis koo xam ne saa yu ëmbee jëkkëram da koy dóor loo ko ba ngay conseillé ba sonn wax nax ko ba sonn mais dana lu ma donc ñooñ tamit seen jëkkër yooyu tamit jar na tamit di leen hmm. approché di xool seen bopp yi lan moo si nekk hmm. parce que loolu tamit y a problème hmm. def naa ne loolu tam problème la madame la présidente est-ce que yow en tant que présidente de femme parfois di am ay jafe-jafe yoo xam ne di nga koy dund ci li nga xam ne moo di ay c'est sa groupement yi nga yor ay femmes yoo xam ne ay victimes de violence la waaw euh, dañ koy dund bu méttee métti sax ndax euh, bu loolu amee sax man dañ may woo si des fois Euh, am na ay viol euh, taux bu mu ñu waxoon ne bëgguma avancer benn chiffre mais Grand Yoff li ci toll ci viol dafa bari bari na torop torop torop te dafa gën di yokk euh, am na benn femme boo xam ne fii la ñu viole ko ñu ñëw wax ma ko ma ne ko nañ dem ci fiñ la ko defee ñu dem ci kër ga fekk xale bu góor bi daw ma yóbbu ko polis ñu def déclaration yi ma dem asbef parents yi nanguwuñu nanguwuñu ñëw bi ma demee ASBEF ASBEF seet ko visite ko ordonnance yi maa ko jënd ñoom nanguñu famille bi nangul jël benn charge kon kooku nangul jël benn charge kooku xam nga ne du poursuivre. Mm-hmm. ah enfin euh, comme que dama doon liggéey ak euh, Serigne Mor Mbaye mm-hmm. ma dem fa ñu def document bi di ko yóbbu tribunal bi ma ñëwee wax ko seen famille ne ko nañ leen dem papa ji ak yaay ji dañoo bañ ne ma duñu ñu dem jarul ñuy dem bàyyi noonu mm-hmm. ma ne ko yéen lii lii moo tax yëf di yokk parce que bu fekkee ne bu ñu violer seen doom au lieu que ngeen topp ko juridiquement ñu dem ba ca buuba ñu punir ñooñu kon euh, bu ko deful dañuy tax góor ñi dañuy gën a yokk encore di def loolu xale jigéen donc donc finalement dossier boobu noonu lañ ko tër bàyyi mm-hmm. am na yoo xam ne nag poursuivre nañ ko jusqu'au tribunal. Mm-hmm. ci fii ay xale yoo xam ne def nañ leen ko euh, mujj gi dañoo condamné ñoom mais li ci gën a méttiwaat dañ lay condamné un an même pas un an. ñun ñu bàyyiwaat leen ñu génn ci biti loolu aussi découragé na jigéen ñi lu ci baree baree bari ñu violente violence boobu ñu lay def mun na am viol dañ cay jële grossesse boo ca jëlee grossesse dañ ku moom ku góor ki sax bu ko nangoo danaan la dindi ko avorter bu ko defee ñu nekk ca nekk ca nekk ca bu xale bi mënta deñ yàlla rek moo yore bakkan bu ko defee xale bi juddu mooy indi euh, xale yi ñuy sànni ci poubelle yi mm-hmm. xale yi ñuy juddu nga rey ko mm-hmm. suul ko ci pax wala nga def ko leneen donc man damay ñaax sama mbokk jigéen ñi lépp muy sa doom muy yow ci sa bopp bu la dalee na nga jël bu dee munoo munoo yor xale bi nga joxe ko parce que fii nag ñu bëgg adopté ay doom ñu ngi fi pas rek sama koñ am na fa kooku jur na xale bi munu koo yor te neen du dellu village du yóbbaale xale bi dafa ñëw ba ci benn kër mu nuyoo ne ndaw si téyel ma maa ngi ñëw kooku téye ko mu dem yoon xale baa nga léegi am na léegi 6 mois kooku au moins mun nañ comprendre loolu mais rey bi lañ war a baax ak gas suul bi ak ay avortement loolu mën sa bakkan mun na ci des dañuy ñaax jigéen ñi ñu bàyyi ci loolu mm-hmm. ku ko ci yàlla indil ndogal nga nga xam ne yàlla moo ko dogal nga bàyyi ba sa doom judd soo ko mënta yor nga jox ko ñi fi bëgg doom bari nañ te amuñu ko mm-hmm. waaw loolu ci xeetu violence sexuelle yi la bokk euh, yeneen forme de violence la parce que nemmeeku nañ ne euh, euh, surtout cas de yi bëri na fi mm-hmm. li dal peut-être physique violence physique yi jigéen ñi di dund seen kër yi mm-hmm. moom la également ñi nga xam ne dañ leen di sàkku di dundu ñu ci bëri malheureusement ay victimes lañ mais duñ nangoo wax duñ nangoo wax loolu moo yàq nag suñu liggéey parce que boo nga koy topp pour dem justice parent yi dañuy bañ wala dañ koy nëpp nëppal sa duñ bëgg ma xam comme ni ko madame Diawara waxee euh, violence aussi ci biir kër yi xam nga ne covid bi jigéen ñu bari euh, ñu ci bari liggéeyatuñ mm-hmm. ñu ngi toog ci biir kër yi te xam nañu dëkk bi dafa métti njaay mi ñu doon jaayi marché sax dañ ko bàyyi te jigéen am na yoo xam ne ni ñuy demee ñii dañuy leb di liggéey dootoo mënati fay bor ba problème topp la ca sa jëkkër loxoom jotul ginnaawam wala même loolu moom la ñuy wax violence financière mmh, xal jigéen ñi léegi ñoo yor kër yi mmh. ñoo yor njaboot gi surtout nag moment yi ñu toll nga xam ne école baa ngi ubbi fourniture yi taxaw nañ euh, inscription yi taxaw nañ te boo liggéeyiwul boo jaayiwul doo am loo ko fayee mmh. donc vraiment violence bi bari na au niveau des femmes ñi ñaan ñu jàppale leen dimbale leen ba nga xam ne dina xaw a wàññeeku mais daal la femme sonn na trop au foyer sonn nañu. waaw madame Diabou euh, euh, yi aussi ay victimes lañ ci surtout violence bi nga xam ne euh, xëy na ñu bëri jàpp nañ ne du violence moo di wàllum violence économique ndax période bi ñëpp xam nañ ne liggéey doxatul góor ñaa ngi toog ci kër yi ñu ci bëri te jigéen ñi lañ doon xëy di liggéey defatuñ ko yow en tant que bàjjenu gox ndax am nga ay cas yoo xam ne daan nga ko constaté surtout ay jigéen yuy ñëw di la expliquer jafe-jafe yi nga xam ne dund ak yenn métit yi. effectivement loolu moom tout le temps day am en fait parce que jamono moo tëddee noonu surtout nag euh, bi Covid bi ñëwee. fekk nit ñi ñu daan liggéey comme par exemple ñu dañ daan daan seen doole te am na kër yu ñu daan liggéey yoo xam ne ñooñu bi Covid bi ñëwee dañ leen arrêté ne bu leen a ñëw mooy ñi nga xam ne ñooy daan seen doole pratiquement ñooñu ngay gën a dëkkal ñooñu ñoo gën a sonn ndax dañuy jógee village ñëw dëkk ci néeg ñu doon group te pratiquement seen liggéey yooyu ñu bari dañ ko arrêté woon ci début Covid bi métti woon na trop trop trop trop trop ba nga xam ne tout le temps dañu ñëw di la solliciter mbaa ñu di la wax ndax du ma am noo ma mën a jàppale wala euh, doo ma koo xam ne su xëyee dinaa ko mën a benn liggéey bu bi def maa rek nga xam ne du ma fa mu am sax lu mu dundee parce que am lu mu dundee bi sax moo doon problème ndax ku fi ngay liggéeyee fa ngay lekke soo liggéey bi amoo amoo benn rémunération ndax xam nga nit ñi ni au jour le jour la ñuy vivre li ñuy am leen amul lu ñuy mën a jànc Euh, loo xam ne dina may am tam aussi maa nga doon wax ne euh, coronavirus bi war na bàyyi ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci ñun. Hmm. parce que doon na loo xam ne nit ñi dañ daan jël tam seen alal di ko saax saaxee n'importe quoi. te normalement corona bi waroon na tax ah, war na tax fi mu ne nii nit ñi xam exactement nan la ñuy vivre après cest à ku ci amati liggéey nan ngay def soo amee as tuut nan ngay fexe ba économiser ci mu nga xam ne suñ bërët jotee nga dugg ci ndax ñun dañuy ñoom ñun jigéen ñi rek loolu mooy suñu problème ndax lu mu métti métti métti dañuy yore suñu xaaj di ko kasar kasare bi corona bi ñu ne nga toog ay moment am liggéeyoo loolu bu fekkoon ne jenc nga as tuut xëy doo dem wax mais dama ne wax lii leçon la boo xam ne nit ñi war nañ ko ci xoolaale ci violence bi ma lay wax na surtout violence yi nga xam ne mooy faite aux femmes man dama ci am bu ma proche boo xam ne moo ma gën a metti ci àddina man mënuma ko sax définir damay xool xale bii du ma comprendre qu'est-ce qui se passe une très belle femme yow amul moom waxtaan ak moom rek mooy dagg saagay ndey saagay ndey rek moom defe naa ci la dëkk. man benn jour ma ko dem ne ko est-ce que yow wér nga wala yow est-ce que dañ la liggéey te pourtant ku ma proche la. man ko dañ liggéey wala lu man comprendre parce que mënu ma mënu ma wax yow su su su koy gis sax yow doo xoolee la femme à travers toi tu te dis que ne kii est-ce que dara la du ñemee sax yow nuyu la yow yow mi nga xam ne yaa bokkoo waa ji laa nuyu. bu fekkee ma nga fay dem. ndax lan ndax ragal kenn comprendre ñemewu la sax nuyu yow su doon kaf ak yow kaf ba kooku dugg si sax kan moo ko arrêté kaf ba man comprendre ma dama xool ba caag ma ne ko yow est-ce que yow mënu yow doo tas. xam nga kenn doo tas kenn du ko wax nit mais dama koo xool ñeewantal ko ba sama xol bi te billaay wallaay soo ko gisee xam ne jigéen dëgg la mais am na góor ñoo xam ne rey leen dafa dagan ren di fateet billaahi dagan parce que man mënuma comprendre nu la jigéen di jure nga am sa soxna mu ku rafet toppeewu la yoroo ñaari dërëm marraine lu su ko baraada moom yoroo ko mm. au le jour ngay te li muy vivre ak yëpp mi ngi lay suturaal kenn xamal ko dara dina am bu ba mu rafet xartu moom dag ko ba mu rafet mm. sol ko ba mu silbise boo ko doon nga ne ay jabar diw ja te yow mënoo ko may jàmm man loolu laa mënta comprendre vraiment am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi dund loo xam ne man ne ñaanuma yàlla sama doom dund ko te sama mbokk mu ma jigéen du ko dund ndax jaral na maa xeex man waaw parce que man mënu ma comprendre da di am foo xam ne ne boo féetee doo fa man dafa am fooy yem mm. waaye am na ñoo xam ne bu fekkoon yow yaa leen jur billaay jar na ngeen ngeen bàyyante soo su bàyyiwul nit ki parce que nag yenn yi metti na ay saagay ndey yoo xam ne dafa dëkk da daay man salaamaaleykum ndokkee jam ndagg saagay ndey rek amul non loolu kenn musu ko gis man bi ma juddoo ba tey te lii man dama ko dama ko vivre man dama ko vivre fekkee mais mais expliquer loolu lan lan moo tax góor wala am yenn violence gis jigéen nag war a am bi est-ce que du mbëggeel baa fa jeex. wala yenn benn mbëggeel am fa ku bëgg nit dina ko def noonu bon ngay wax bon. Hmm. dafa am ñoo xam ne naturellement dañoo bon bu ñu seen jabar jekkee rek sax. du ñoom rek dee la ñuy bëgg su leen kenn xoolee ñuy bëgg dem alaxira te yow joxoo ko dara yàlla bind ko nag mu am bind bu jekk tabarkalla macha rafet nga xam ne lu mu sol mu rafet su ko góor nuyu woon nag yow mooy loolu mooy <laughs> boo yegsee ci kër ga mooy dee nga. Mm-hmm. c'est du jamais bi. Mm-hmm. man mosuma gis loolu. Mm-hmm. Euh, waaw waaw loolu dama ciy wax tuuti rek. xam nga dafa am góor ñoo xam ne man dama foog ne dañoo wóoluwul seen bopp. Euh, yaa yaa loo xam ne ils ne sont parce que góor soo takkee jabar indi ko ci kër gi ñàkk day am euh, léeg-léeg yàlla def xéewal mu ñëw mais soo fekkee ne yàlla defu la xéewal yoroo dara mayal jàmm sa jabar mu dem daani dooleem mm-hmm. ñëw ci kër gi di togg ngeen bokk lekk ba yàlla changé situation mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne foog nañ ne comme ko ñu rek ndaw si dafa leen di xeeb mm-hmm. wala ndaw si day génn defi nëkkatu sudul noonu donc ba nga xam ne lu ndaw si def rek danaan kii dafa da mu ngi koy trahir wala mu ngi ci yeneen. Mhm. parce dafay nekk psychologiquement ci boppam. Mhm. donc loolu bu manque de confiance daal ci góor voilà jàpp góor ñi ba nga xam ne duñ may jabar seen seen duñ may seen soxna yi jàmm. Mhm. Euh, donc wala aussi nga am yoo xam ne da ko koy wax gis nga jigéen a ngi dund loo xam ne ci biir néegam. da lay wax yu naqaree naqari wax yu naqar ngay misère. ñu naan lan la lu ko dal fekk li muy dundee ci biir néegam jëkkëram di ko ko yekk ci biir néegam violence verbale bi moo gën a métti donc di ko di la ko def say doom di ci xool. Mhm. te duñ ci mën dara. Mhm. ak dëkk ak mu lay tong pendant des mois wala des semaines wala des années yoo xam ne. te rus nga génn ci kër gi ñu ne bàyyi nag njabootam wala mhm. génn na donc Sénégal xam nga famille sénégalaise. teyal sa sëy bi toogal muñal. sa doom yi muñal ba nga dee ñu dem. donc loolu moo fi am. mu takk keneen indi. voilà. madame Diawara. <laughs> <laughs> man dama ne loolu signe faiblesse la. Mhm. sa góor bu faible. Mhm. yow boo ñëwee sa kër nga nekk fa gaynde. Mhm. génnee si mbedd mi. koo di ree. nekk naan diw dafa dafa laabe dafa neex man loolu faiblesse laa ko jàpp. parce que yow munoo yow ñi nga xam ne ki nga xam ne yaa ko jëlee kër ndeyam ak kër baayam takk ko andi ko mu bàyyi ñëpp ñëw si yow. te 99 pour cent jigéen ñëpp ñooy mottali dépense. maa la xale yi kaye. la si yëre xale yi lépp ñoom ñoo koy donc yow amoo lenn loo ko mën a defal lu ay saaga. Mhm. guddi gi li ngay gis góor ñoo xam dañuy fanaanee xas jabar guddi ba fajar xas la xas la ba yow ba mhm. jigéen ñi guwaatul 99 pour cent yi góor la cardiopathie yi ñun genn wàll gi parce que naqar bi ngay am métti mhm. xol bi ngay am di ko dund depuis des années nga toll ci sa doom yi nekk ay tout tànk magaguñu mag boo xam ne yow war nañoo laa mën a seconder suba yow balaa ñuy tekki fekk ne yow c'est trop tard suul nañ la bu yàgg nga dee ngi dem sa beneen morom naan ndekete lii am na ndekete loo xam ne nag man dama ne jigéen dara dara la ko jaral. loo xam ne yàlla tegu la ko. bu mhm. ko teg sa bopp. te subaa sa say njaboot bu ñuy gis sa sa parent di def violence boobu sa papa di la def yéen di la saa moom bu màggee day foog ne. day violence yoree mhm. mhm. wala jabaram noonu la leen war a yore da leen war a violenté. ñaata lañ fi gis ay góor yu violenté jigéen ba mu mujj ci mara day. ñaata yoon lañ gis ay papa yu violenté seen doom ba ñu parce que li ngay acharné parfois da ngay mere yaay ci sax dem wàcc ci xale yi. défoulé ci xale yi ba maara day taali am donc man dama ne jigéen bu ne yaa mën a xam lan nga xam ne góomu ndaw bii bu ma ko mm-hmm. bàyyee ni ba mu nekk mm-hmm. góomu robaat mm-hmm. suba am na lu say doom di comporté woo loo xam ne yow loolu si seen papa la ko gisee ñaata doomu taaw lañ gis ñu attaqué seen papa du benn du ñaar du benn du ñaar preuve bu tangible tangible papa yu jàpp ji jaaji di dóor di dóor di dóor ñu fa def doom bi dañ ko sosoo dóor papa ji ba ñu hospitalisé <laughs> dañoo dóor seen papa ba mu mokk rund loolu gën a lu leen woon mhm. mais dañoo dañoo dem lekk ay mag mhm. muñ nañ ba sonn taaj seen papa mais munul paa bi nu mun dawee noonu la violent mais xale yi dañoo defula ci buy dóor yaan dañoo defula ci kawam ba mokk ñu hospitalisé wala jaaree may yaay jàpp donc am na loo xam ne doom su ko defee war ko def sax parce que du yoon mhm. mais am na loo xam ne tam jabar sa nawle la mhm. munoo koo tee di ko surtout jigéen bu ëmb nga tee ko di ko xas mhm. mm. jigéen bi daal saa yu ñëwee hôpital tension normale mhm. saa yu demee kër ga tension bi yéeg buñ ko hospitalisé tee ko sax parfois sax góor nu muy comporté woo di nga xam ne kii dafa la yow sa jabar day wasin nga ñëw yow doo lijjanti sax ndaxam mu ngi ci jàmm ndaxam mu ngi ci salaam déedéet buñ la bàyyee nga dugg ci saal bi dugg nga rek te doom ja ngay jubal xool doom ji ah, ah, ah macha allah. ma ne la jabar ji nag. ah mu dara sa yaram. papa ji nga war a njëkkee. dëgg bu gën a. kii boo joxee ordonnance yaay jox ordonnance papa. doom ordonnance doom bi la ñuy dem jënd ba pare. xanaa mu am kit ñu door a andee na waa yaay ji na xaar après donc yow maanaam yow daal ki nga xam ne depuis des années yéen a ngi ne. kooku am na leneen lu gën nekk priorité mm-hmm. a toppatoo xol bi sedd mm-hmm. a sedd mm-hmm. kañ la doomam yi sama yaay lay bëgg a tekki dëgg da ko ah. euh, mais dafa mel ni quand même jigéen ñi est-ce que du euh, benn moment ñoom ñoo nangu nangoo doon ay victime parce que mënoo nekk ci sëy boo xam ne amaana bañ lay labat ba takk la neexoon na ngeen dund mbëggeel ñu dem ba benn moment parce que souvent dañ koy wax ne góor noo gën a yàgg ak moom euh, mu mu lay jéppi yow ku jigéen ki ngay gën a attaché wu ci moom est-ce que du parfois jigéen ñi ñoo nangoo noon doon victime pour di subiir yi nga xam ne moo di violence yi parfois di nekk victime malgré yow mm-hmm. parce que yow mënoo nga jur ay doom sa doom yi dem ba dool benn âge boo xam ne sa kër yaay ak sa kër papa amatoo fa place. soo génnee parfois yow contrainte moo lay téye parce que soo hmm. génnee fan ngay dem. Hmm. amoo loo liggéey amoo loo jàpp. Hmm. mënoo jël néeg di ko fay. mënoo jël appartement di ko fay. lan ngay def soo fa bàyyee say doom keneen ay ñëwaat. te bu ñu ñëwee dina lu amoon à moins dinañ dundaloo sa doom loo xam ne dina metti donc yow da ngay obligé toog fa malgré yow. nga muñ muñ bi ñu lay wax ngay muñ di muñ. peut-être yow da ne dina jeexi wala kat comme sëñ baa ngi jëm mag dina changé mais am na ñoo xam ne ku nekk xam nga yow ki la yàlla booleel xam nga ne kii borom xadar la am na ñoo xam ne nag xadar gi da leen dab am na ñoo xam ne nag toppandoo da leen neex mm-hmm. ndax nit mënoo nekk ak moom des années et des années mu xëy benn jour rek commencé saaga commencé saaga di buruxle kon donc mu indi comportement boo xam ne mhm. soo ko bàyyee fichier merde ngeen baal ma ci terme bi mhm. Mhm. saaga yi sew sawaan bu yàggee mooy indi mbéj bu yàggee mooy indi gaañ la gaañ la ba pare dellu neexal la nga koy dund day dem mel ni yow violence boobu da nga ko tàmm da dem ba mu nàmpatal la ci ba nga xam ne na yow mii bu la dóorulee am na jigéen ñoo xam ne nag ñoom beneen kaa la. Mhm. beneen kaa la dóor yi da leen di neex. wala mel ni ñoom histoire am teg rayante bi loolu. daf leen neex ñun tam boo xoolee au fond li lay pousse ci ngay def loolu di la ko jëmbat moom moom ko góor ki moom la ci nekkal parce que kenn bëggul nekk sa jëkkër ngeen di tontonte 23h ba ñu nodd fajar ngeen di xuloo di tontonte di xuloo di tontonte mhm. xale di ko dégg di ci jël kenn bëgg ko dëkkandoo yi di ci dégg déggati nga de waa kër Jóob di ñu ngay xeex commencé nañ déggati loolu am na loo xam ne kenn bëgg ko moo tax jigéen ñi dangay ngay obligé yow nga toog di souffrir guddi gi yëpp nga fanaane koo jooy ba fajar boo xëyee suba nan ngay def boo ñëwee sax consultation yow ouverture lay doon da ngay gis ko xam day ñëw rek toog nga xam ne kii ça ne va pas soo ko cofee tuuti rek mu craqué. Mhm. dañuy obligé tëj bunt bi bàyyi ko mu défoule défoule la parce que loolu nekk ci moom amul fu ko génne bu dendee li ne ci moom ba xolam giif nga conseillé ko wax ak moom après mu dem. Mhm. dina ñëwaat beneen jour boo xam ne sax loolu andiw ko mais day ñëw mel ni comme genre compte rendu. Mhm. dina jéem a amante yow affinité. comme genre compte rendu la ah léegi de moom tane na léegi de moom nii na. mais ni ñuy dundee violence dafa metti saaga dóor xaste dóor bi sax xam nga da nga koy yëg sa yaram mu hmm. ne mais xaste bi dañ lay xas xas yoo xam ne sa xol bi lay jàpp hmm. yow nga koy misère di ko toog di ko jooy di ko jooy bu yàggee da lay jural feebar hmm. stress sax c'est l'ennemi du cerveau est-ce que boobu dafa baaxul jigéen ñëpp stressé nañ donc amul lenn loo mën a def li nga doon taaba taaba di ko doon foraatu covid bi de kenn génn donc yow liñ la doon jox ngay jël ci li ngay am di ci dolli amatoo loolu déjà loolu stress lay doon moom mu bëgg la ci dolli leneen te li ko maman waxee seen dara matul ba pare nga bëgg ci andi ay affaire neexul tamit madame la présidente est-ce que comme ni ma ko laaj léegi rek est-ce que parfois aussi jigéen ñi ñooy nangoo doon victime parce que nag violence yàgg na yàgg na ci àdduna bi mais toujours jigéen ñi booy xool li jigéen di faatu ci wàllu violence tëdd amaana bu ñu tëddee kaso yi du mujj fenn comme ni ñu ko waxee benn moment lañ leen tëj après ñu gracier leen wala ñu bàyyi leen donc kooku ay njabootam tasaaroo daanaka benn moment est-ce que jotul jigéen ñi euh, génn quand même révolté waxuma révolté parce que ñi ñaa ngi def ay combat yoo xam ne quand pour ñu xeex violence jóge fi mais dafa mel ni wax ji rek doyul est-ce que jotul quand jigéen ñëpp génn ñu def benn marche national bu mag boo xam ne képp kuy jigéen ci Sénégal di nga génn de manière simultanée ñu xeex li nga xam ne moo di violence pour une bone fois waaw man Fatou li nga wax dëgg la mais foog naa ne ñun combat bi depuis je me rappelle 2010 ou 2008 euh, def nañ fii loolu quinzaine de la femme yi fi daan am 8 mars yi fi daan am dañ ko daan def sol suñu yére yu weex topp tali yi di dox def suñu slogan dox ko wax ko te gisuñu dara lu ci lu ci lu ci lu loolu moom marche bi ak yuuxu beeg wax bi pas plus tard bi ñu violé xale bi nekk Casamance ba mu dee. def nañ fi marche. mais fu mu mujjee mujjewul fen ñun amul façon xeex bu ñu deful ci violence faite aux femmes. et aux enfants lépp def nañ ko fii ci Sénégal mais gisuñu dara lu ci yokk bu fekkee ne am nañ victime ñu jël ko yóbbu ko à la justice ma ne la du yàgg nga tase moom ci mbedd yi mhm. donc man ñun fi mu ne nii dañu dañu dañu kii daal sonn nañ daal xamatuñ lu ñuy def vraiment parce que jigéen ñi nag sonn nañu nag euh, wax nañ ko léegi euh, xam nga jigéen ñi am na ci ñoo xam ne sëykat lañ dañu nekk ci famille sëykat loo leen ti def dañuy toog sëy mhm. mais génération bi ñu nekk xool leen divorce yi ni ñu bari ah, boo demee tribunal suba ba ngoon jot 24 heures sur 24 divorce ni parce que xale yi nangootuñoo muñ la seen yaay mhm. muñ mhm. divorce yi bari nañ xeex xuloo wala nga tëj sa jabar ci sa kër nga dem dox ba fajar nga ñëw ñibbi si xale yi nangootuñ ko donc violence boobu yëpp dafay bari am nañu nangoo sëy ñu toog comme ni mu ko waxee léegi danga naan man am naa fi juróom-ñaari doom juróom-ñetti doom tey bu ma tasoon tey dem sama kër papa fu may nekk mhm. dama leen di yokkal charge xëyuma gontuma boo xoolee sa situation familiale danga naan mën naa toog sëy te yàlla tax xëy na lii dina changé ji wala bu doom màggee man ma am na ñoo xam ne nag loolu duñ ko fa xaar daan nañu ñuy rayante ba tribunal dem seen kër toog wala nga dem luye sa chambre daal di fay dëkk loolu tam nag am na lu bari loo xam ne indi na ko ci réew mi actuellement xale yi jigéen ñi sëy un an deux ans am sa benn doom ñaari doom génn dem luye ji appartement aussi loolu ñun def nañ ci ay ay gëstu def nañ ci ay waxtaan mhm. loolu aussi gën na tax prostituée bi mhm. prostitution bi mhm. yokku gën na tax aussi agré agression bi yokk parce que nag boo toogee yor say doom sa kër wala nga luyee war a fay say néeg wala dundali wala nga fekk sa yaay yoral la say doom nga war koo dem jox mu dund nga ne damay dem ci tali bi taxaw pour lu ma am suma ma xëyee joxe sama yaay mu dund fay sama néeg loolu aussi euh, divorce yu bari day gën a yokk tax mhm. prostitution bi bari mhm. violence bi bari violence bi dafa bari actuellement te jigéen ñi nag ñoo ci gën a loru nag. rey nañ ko fii euh, dañ ko doon agressé. violé nañ ay xale yu ndaw. voilà donc euh, loolu lépp ci femme lay aboutir. donc il est temps nag suñu état. suñu réew. taxawu jigéen ñi protéger leen ba nga xam ne euh, maa ngi liir sànq rek benn ay femmes yu demoon ci àll bi surtout les femmes. ñu ne ci village ñu nekk ci village yi mm. xam nga dañuy xëy dem ci àll bi uti ay matt mm-hmm. wala actuellement jamonoy tool la ñu dem ci tool yi di yóbbu seen jëkkër yi añ wala ñu dem di béy bu ñu groupé nekk cinq wala six di dem dugg ci àll bi di uti matt wala ñu uti lu ñu togg fekk fa ay bandi wala ay ay góor sax duñu sax ay bandi mais dañuy ne ci tool yi di béy gis la xemem la ne xaaral kii ñu def ko donc loolu aussi daf ci bari ba nga xam ne temps yi actuellement loolu moo nekk. Euh, ci ci ci kii bi. ci sous région ay xale góor yu bari lañ fekk leen ñoom ñuy dem ci tool yi ñu violé leen. mun na am ñu jëlee ca ëmb on sait jamais. donc buñ ca jëlee ëmb déjà coono jafe-jafe ñëw na. donc jigéen ñi daal lu ma leen mënta wax. sonn nañu man dama dem ci ay groupement damay def ak ñoom causerie. Mm-hmm. ma pare benn femme ne ma madame Touré ma ne ah mu ne ma dama am problème kaa ñi waxtaan ma ñëw toog ñu waxtaan fekk def nañ causerie wax ci loolu yëpp ñu wax leen seen i droit wax leen li nga xam ne moom lañ war a faggandiku ci biir kër yi donc vraiment dañ leen di dañ leen di protéger wax leen seen li nga xam ne moom lañ war a toogee seen biir kër yi ak seen doom yi aussi mhm. parce que jigéen ñi aussi da ngay dem sëy yor say doom doo toppatoo sa doom mhm. watti leen ci mbedd yi ñuy taxawaalu ah donc loolu yooyu yëpp ñun dañ koy waxtaan ak ñoom femme bi ne ma man dañ ma enceinte yàqu ma biir ma ne ma ne ko baa yàqoo biir ba mu ne ma déedéet ma ne ko ana xale xale baa ngi jàng day def ren entrée mais ba léegi papaam reconnaître ko mu ne ma te papa mu ne saa wu na ko dañ may laaj sam papa anam mu ne ko mu ne ko sa papa nekk dafa tukki mu ne ma xale bi papa mu ngi fi te nee na ma am na ko koy seeti foofu di ko di ko jondal ay bon bon ay kaye affaire yooyu hmm. mu ne ma mu wóor ne papaam la mu ne ma benn bés ma wax ko mu ne ma waa man da koy fekk ba ca école bi. te reconnaître ko. ah te ba léegi reconnaître ko. actuellement ni reconnaître na ko parce que def naa médiation bi. dem naa ba ba ci bi ñu wax ma fi jëkkër ji dëkk benn bés ñu toog ñu waxtaan. ma ne ko yaa ngi seeti xale bi ci école bi yaa ngi koy defal lu nekk yaa ngi koy may pour pourquoi pas nga reconnaître xale bi yaay ji am na beneen jëkkër mu ngi sëy reconnaître ko rek lañ la laaj parce que yow xam nga ne kii sa deret la ku ko xool sa xam ne yaa ko jur damay ragal damay bëgg nga def procédure bi boo xam ne yaa jur sa doom nga toppatoo ko mu continuer jàng xale bi day def euh, entre en sixième te loolu mu ci bopp bi parce que day laaj yaay ji papaam toujours loolu mun na nekk ci bopp ba day mun na yàq jàngam ñu lay ñaan rek de reconnaître ko wax ak moom ba finalement mun na ma xaw ma fu may jaar ma boole ko yóbbu ko maison de la justice boole ko ak les femmes juristes affaire yooyu ñu tomb toog ba reconnaître na xale bi xale bi am na entrée en sixième ba tey mu ngi lycée mm-hmm. donc loolu yëpp mu ci biir jigéen ñi mm-hmm. ñuy dund ba dañuy xam am métit mais duñu xam fu ñuy jaar ak lu ñuy def mm-hmm. donc erreur bu amee ñu jéem a def boutique yaa ngi fi boutique de justice Médina am na benn Grand Yoff am na ku ci am problème boo fa demee dinañ la teg ci yoon te dinañ la xamal sa droit xam la fi ngay tegu ba sa sa problème ñu résoudre. Mhm. madame Diabou. Mhm. Euh, mu mel ni quand même kon des na si jigéen ni ñu gën a euh, boole doole comme ni ko madame la présidente waxee pendant des siècles mën naa wax ne ñu ngi combattre violence faite aux femme mais ba mhm. léegi amul benn résultat bien que nag euh, ci wàllu violence sexuelle yi am na jéego bu ci njiitu réew mi def di violence di criminalisation viol mais teewul nit ñaa ngi ba léegi nit ñi mu mel ni kon nit ñi dañu amagul conscience ci li leen di mën a xaar ci kaso bi ëllëg effectivement parce que euh, yenn violence yi yenn viol yi mhm. ci biir famille lay doon biir famille xeet lay doon ñuy nëpp nëppal sama jarbaat la su ma ko yóbboon nangam ak nangam yow yow kii sëy di nga bëgg sax ñu ñu ñu yóbbu ki nga bëgg a yóbbu mais dina la wax a wax a wax a wax a wax da xam xam foo jaar yu bari mi ngi am du ñu xam sax fan la ñuy jaar ndax dañ leen di topp rek nangam ak nangam war ba pare encore am na beneen affaire boo ñi nga xam ne dañu yore seen doom yi ñu sëy ji yow sa doom ñëw wax la ne sama jëkkër dafa maa dóor nga gis ci yaram wi ay dóor ak ay gaañ-gaañu yow doo fa lijjanti dara lu dul demal nga muñ ndax fii kat amoo place kër gi daa xat de. Mm-hmm. genre boobu mën na rey nit dañuy toog ba seen doom yi dee ñu doom di ko jooy ci dafa am noo xam ne soo ko yoree sa njaboot soo ci gisee lu la naqar da nga ci war a teg da ko war a dem teg ci yoon mm-hmm. nit ki nit rek lay mën a doon wax la nga war a waxoon ña ko maye woon nañ fi jigéewuñ fii foo nga dem wax mais ñëw ku ñëw wan la ne lañ ko def yow lijjanti wala dul ah tey ngaa dem toog rek muñ sax fii de kër gi daa xat boo ñëwee du foo nekk kooku da nga koy découragé kooku kan lay waxee fan lay waxee naqaram fan lay waxee coonoom lii euh, madame la présidente wax dëgg la parce que ñun dem maison de la justice ñun bàjjen gox commencé woon nañ ci covid bi sax moo tax mu am na lu ñu bëggoon def pour nga xam ne jigéen ñëpp jox ñu ay flyers yoo xam ne dañ koy joxe pour jigéen ñi xam ne fii ku am problème

fi ngay ñëw wax fa sa soxla te kenn du la indil benn problème du ndax parce ñenn ñi ragal nañoo ragal. Mhm. ñenn ñi amuñ ku leen dimbali. am am na ñoo xam ne xamuñu sax fan la dem pour wax seen seen mhm. loolu amoon nañ ci te loppi maa ngi koy nuyoo passage. Mhm. Euh, war nañ ko gën a toogaat waxtaan parce noonu la ñu façon def ñun bàjjeni. fexe joxe ay flyers di fexe nag ñun ci suñ bopp euh, ñi gën a ñemeloo jigéen ñi suñ bopp. ba ñu xam fan la fekk ba bu coono amee a leen jaarale c'est-à-dire yenn saa yi da nga naan nit ki soo fa demee da ne mën na bañ a doon divorce. mën naa am koo xam ne xëy na aussi dafa am problème yoo xam ne du euh, doore du du ci cëram mais am na lu tax mais loolu boo demee di waxtaan ak moom am na mooy demee xëy na peut-être loolu dina ko bàyyi. te te du am benn problème mu divorce ak yooyu parce que nit ñi liñ ci xalaat dafa bari yooyu yëpp dañ ko ci xalaat dañuy ragal ne ñu dénoncé seen sëy tas suñu dénoncé seen jëkkër demee duñu am fu ñu nekk yooyu de seen njaboot nam mais dafa am violence yoo xam ne góor gu ne war nga koy bàyyi xel mhm. doom nawle la mhm. am na façon boo ko boo koy def sa jabar wóor na yàlla yoon tamit yaa ngi def loo xam ne xamoo ko waxuma la copier sax waaye xeen bi doon nekk sa doom boo xam ne tuuti la bëgg ba ilaa yawmi diin parce que yaay dafa jege ak doom mm-hmm. am na noo xam ne danga koy def sa sa jabar nga defe ne moom nga koy def fekk ne yaa ngi def sa doom loo xam ne ëllëg am nañu bare ngi abandonné seen papa yi yore ah, lu jeex duñu jox seen baay dara mm-hmm. parce que nañ daan def seen yaay moo tax ba ñu màggee dund pour rafet la ñuy dugal seen yaay seen pap du ci bokk te fekk na dañu xool fekke gis te am na loo xam ne dafay ancré wu ci biir nit du ko mën a wax mënu mhm. ko woon a ŋaangu demee mi ngi doon rek naa góorgóorlu am jom boo liggéey ma dugal sama yaay foo xam ne yow doo ci bokk yow papa ji mhm. xam nga loolu tam góor ñi war nañ ci bàyyi xel mhm. vraiment mais violence faite aux daal métti na jigéen ñi sonn nañu am ñenn ñi mënuñoo wax ndax jomm nañ ko ñenn ñi ñi seen kilifa du dimbali wuñ leen parce que loolu yëpp tam am na ci kilifa yoo xam ne mm-hmm. dimbali wuñ seen doom waaw mm-hmm. ah, loolu yëpp am na ci daal vraiment des fois ñuy seetaan ba situation bi exagéré uh-huh. di fàttali auditeur ne ñu ngi déglu euh, euh, tey jii suñu émission bi ñu jagleel wàllu violence basée sur le genre genre nag du jigéen kese nañ ko fàttali aussi mm-hmm. euh, te que ni jigéen ñi di subir violence aussi noonu la góor ñi di ko subir mais dafa ëpp si jigéen ñi moo tax campagne bi campagne digitale bi jóg di aar jigéen ñi AGSP D lëkkaloo ceeg rajo Afia FM ak kuréel yi di AJS pour ñu taxaw xool ban situation la ñuy gën a améliorer euh, dundinu jigéen ñi pour que violence yi wàññeeku mais euh, soxna ma jigéen bu ñuy wax violence dafa am lu ñuy wax droit sexuel yow en tant que sage femme xam nga ne am na ay jigéen dafa soxla bu euh, tollee si ëmb ak imbi di toppatoo wér yaram yaramu njuram ñu constaté également que ni ci wàllu woow sax day am ay gàllankoor surtout ci période Covid bi hmm. ñoo xam ne duñu sax am sañ-sañu dem sax euh, ci sage femme wala ci poste de santé pour régler seen problème mu euh, planning ak yooyu yow ndax euh, situation yooyu dinga nga koy dund. waaw Fatou waaw loolu mu ngi fi de mu ngi fi de <laughs> ak Covid bi même bien avant Covid bi sax am na si góor yoo xam ne seen jabar du def planning. Mm-hmm. lu tax mm-hmm. même bu dee dañ laa césarienne doo def planning. ci jamono ji vingt et unième siècle bi deux mille vingt fi <laughs> réew mi toll am na ñoo xam ne même bu dee dañ laa si dëgg la carrément bu am na si ñoo xam ne nag dañoo dégg ndigal hmm. waaye dégg ndigal ba rey sa bopp tamit dara da koo jarul hmm. nga xam ne yow mii grossesse bi risque la hmm. rëcc nga yàlla moo yor ñëpp bi ci topp neneen la nga noppalu ku lañ la wax nga bëgg ci tegaat beneen grossesse loolu risque la te risque boobu tamit booy xool ah yaa ngi sacrifier sa bopp donc man dama ne ak Covid bi am na ñoo xam ne nag moom dañ naan la bul dem dañuy am dañuy raté seen rendez-vous boo leen ko foo nekkoon boobule dañ naan la sama jëkkër moo ne bu ma ñëw hôpital mm-hmm. peut-être dañuy ragal mm-hmm. Covid bee tax ñuy ragal a ñëw mm-hmm. parce que dañuy ragal bu ñu génnee ñëw ci structure bi mun nañ fa jëlee dara am na ñoo xam dañ leen di bàyyi ñu ñëw mais loolu commencement bi la woon mais léegi nii ñu ngi bëgg a yeewu yeewu bu baax parce que xam nañ ne Covid bi comme nee nañ nañ bind mm-hmm. dund ak moom terewul ñu ngi ñëw si seen consultation mais ticket nga gis quelques rares yoo xam ne dañuy raté mm-hmm. parfois dañ naan la aw ma woon njëgu ticket sëñ bi yorul woon parfois ñu la sama jëkkër moo ne ma naa xaar mm-hmm. parfois tamit ñoom seen i problème personnel dañ naan dama amoon dama jàppoon wala dafa amoon ci lu ma nekkoon mais ñii moom xaw na tane par rapport ak commencement Covid. kon day am jigéen ñoo xam ne tey jii bu ñu ñëw seen jëkkër bu leen tere ñu def planning par exemple. est-ce que am nañ ay astuces yoo xam ne mën nañ ko def pour seen jëkkër du ko xam. ah waaw mais ko dem ci làmb ja tam di wax nii nga may daanee nag jànk hmm. noon de am na yenn stratégie am na yenn astuce yoo xam ne soo ko dévoilé wax ko hmm. amatul benn sens kon hmm. kon ñun tamit dinañ sunu sunu secret yu ñu amoon wala lépp lu ñu amoon ni nga xam ne noonu la ñuy jàppalee femmes yi day Mm. mais dina am quand ñoo xam ne malgré que seen jëkkër bëggul ñu def planning dinañu ñëw pour ñoom xam nañ ni bi ñu ci mën a jëlee après buñ bu dee seen sorante wuñu seen i njur mais que ñoom dinañ jël seen matuwaay ak seen responsabilité ñëw def li nga xam ne. waaw am na am na ñoo planning bëri na façon am na si boo xam ne am na si yoo xam ne boo ko defee di nga mën a indi sol chaque mois kenn xam nga kuy indi sol chaque mois am duñ ne euh, jël nga grossesse wala jël chaque mois yaa ngi indi sol comme normal am si yoo xam ne mën nga bañ a gis. peut-être ñi ngay bañ a gis moo tax dina moom dina dutee ne la ah lu tax gisoo weer bi nañ dem hôpital nangam sangam mais am na si wax dañuy ànd ak seen soxna yi pour vérifier. pour parfois am na dañuy ñëw ba hôpital ne la kii ñu koy day ndax day ñëw fi di def plané. Hmm. waaw dañuy dégg ah yow yaay Fane Ndiaye yaay Fane Ndiaye sage-femme sage waaw dama laa soxla nga ñëw wala ñu woo la téléphone ne sama jabar dafay def plané seen hôpital mais yow. doo tëb tëb rek parce que doo tëb tëb rek ngeen ne ko sa jabar nu mu tudd mu ne diw ngeen ne ko waaw danga naa ko déedéet ah li na su ma ko gisee dinaa xam kan la parce que parfois am na nooy tontoo noo xam ne da ngay foog ne pour éclairer ku góor gi la fekk na dala piégé nga gën a soxna si mm-hmm. donc duñ la woo tëb rek ne la allo ndax sama jabar fi lay defee planning da naan ko yow la kan kan mooy sa jabar bu ne la fanjaay ngeen ne ko ah li ma yor ci fanjaay bëri na soo leen àndee ba ngeen ñëw bu dee moom la dinaa xam loo ci bëgg leeral ma leeral la ko mais am nañ suñuy code ak suñuy affaire yoo xam ne. mais dans ce bu ñëwoon tey jii ànd ak soxna si ne ko lu tax nga xam ne kii dafa ñëw pour wax ne lu tax jabaram di planning est-ce que yéen en tant sage-femme di yéen fexe ba waa ji du du indi jafe-jafe si seen digganteem ak ndaw si ba ëllëg si biir. moom moom amul droit daal peut-être moom jabaram mais mu ànd ak ñoom dugg ba pare ne lu tax seen jabar di sama jabar di def planning fii. moom ba jabar ji def plan yi xam nga moom fekkewu à mm. moins que ñoom ñu ànd mu defal ko mu autorisé ko mu def benn 3 mois jabar ji ñëw defar te am na loo xam ne tamit moom balaa muy dugg ñun dañuy ko waa ah, ñu seet ko ba pare ñu génn ñu bi wax ak femme bi ba xam ban langage la bëgg ñu wax ko jëkkër ji su nee nee na buñ ci leeralal lenn mm. moom bu duggee toog dañ naan ko seet nañ ko ba pare waaye yow li nga wax li yëpp yi foo ko teg nangam sàngam lii lañ seet ni parce que am fen buy defar moo gën dëgg buy yàq mm. parce que bu fekkee ne nit ki mu ngi def ñëw nga toj kaas yi ah bu ñibbee tamit yeneen conséquences lay am. Hmm. donc ñun femme bi moo ñu intéressé ndax mooy suñu cliente. bu paasee dagg dugg ba ñëw toog ñu wax ak moom seet ko defal ko li ñu koy defal yépp su nee bëgguma lii parce que dama confidentialité dafa am. Hmm. am na loo xam ne même yaay ak doom suñu àndee nga seet doom bi bu nee sama yaay bu mu ci xam dara amuñu droit pour wax ak yaay bi parce que hmm. yaay bi. consulté wuñu ko yaa ji intéressé xale bi moo ñu intéressé dañuy teg suñu buntu wax ak moom lu ñuy wax ak moom pare bu ñu pare teg suñu buntu génn mm-hmm. mu génn mm-hmm. Mm-hmm. loolu naa leer na <laughs> madame la présidente waaw euh, planification moom euh, góor ñu bari bëgguñu ko ndax euh, dañu nekk ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent islamique lañ ba nga xam ne boo nee damay arrêté njur mi ñu ne yoroo ko yàllaa ko yor gémmiñ gu euh, gémmiñ gu yàlla xar def te lu mu lekk loolu lañ lay wax def ci barke bu ñu xool nag euh, euh, contexte bi nga xam ne moom la ñuy dundee actuellement ah, dëkk bi métti na waxuma la nga yore benn xale buy dem école rek nga bëgg éducation bu baax mm-hmm. xas bu bari nga cay def soo te yoree cinq wala six nag dina am ñu ca raté te doo ko mën sax bu ko defee nag yow mi jigéen nga ne man de damaa bëgg samay doom ëllëg arrivé seen njàng jaar yoon damay planifier yemale ko ci ñaar wala ci ñett ku góor ka ne la lu tax man am na sama benn xale dafa def euh, plan yi mais jëkkër ji xamu ko xam nga am na yoo xam ne boo ko defee boo tëddee sa jëkkër daf lay wax ne lii am nga loo def am na am na ñu mel noonu hmm. euh, kii nag dafa toog jëkkër doom ji dafa am trois ans 4 ans amul doom jëkkër ji ne ko dangaa planifier daal di dem indi benn pël ne ko ñaanalal ma <laughs> ndax dafa taxaw jabar ji da mu ma damaa tiit bu ma gisee góor bi toog ma na ko lan la mu ne dangaa taxaw damaa bëgg mu ñaanal la pour nga am beneen doom mu ne ko man maa la wax damaa taxaw mu ne ko kon dangaa plané ñu coow ca coow ca ba ndaw sa dem seen kër xaw nañ caata si ñoo ca toppaat bi ndaw si ñëwaat donc am na góor ñoo xam ne ñoom bu ñu sañoon da ngay dul rek fu ko yàlla yemale nga yem hmm. mais nag am na context yi mu laaj yoo xam ne moom il faut mu laaj la sax ne bur julati parce que ñoom itam foog naa des na ci seen bopp da ngay waxtaan ak ñoom que duñu wax ne ñii duñ amaat doom mais bu fekkee ne da nga toll ci liggéey nga nga jur am nga nga koy nekk par un an demi wala deux ans kooku noo ko mën a boole ak dem di liggéey mënul nekk muy liggéey bureau ba muy liggéey marché ba muy yaa xam yaa yor sa atelier c'est très difficile am na ñoo xam ne da ngay dugg ci ay atelier fekk ñu tëral seen bébé suuf te loolu loolu loolu àndul ak mm. àndul ak santé bébé bi mm-hmm. donc ba nga xam ne euh, góor ñi mënuñu concevoir loolu dañ leen di wax na nañ soreel nañ soreel ñur gi mm-hmm. nañ ko soreel mais ñoom mënuñoo comprendre loolu mm-hmm. loolu nag dañ ci wax a wax a wax a wax ba sonn ci góor ñi def ci ay causerie ba sonn mais ñoom daal mënuñ ko nangu ba waxee ñu ne l'islam bëggut loolu l'islam bëgg ko comme que ñun ay jullit lañu te nag dañu am ci charte yu ñu tegu aussi ba nga xam ne tam daf ñuy daf ñuy sonal des fois ci ci ci diggante ak sa jëkkër xam nga ba nga xam ne duñu nangu pour nga planifier da ngay leen di expliquer mais ñoom daal jigéen ñi daal dafa war a jur rek ba xëy dee wala jur ba kër gi fees mm-hmm. fu ko yàlla yemale ñu am mais nag nañ xool ci contexte bi mm-hmm. parce que da ngay dem doo leen mën a dundal mm-hmm. doo mën a am comportement bu baax bi ñu war a am du ñu dul solo yére yu baax yi ñu war a am parce que mënoo sa doole attanu ko pour nga yor leen nag leen war a yore wala xam-xam bi war ci ñoom doo ko mën a def ci ñoom pour ñu def ko ci moo indi rek euh, vagabondage bi nekk ci mbedd yi xale yaa ngi taxawaalu ci mbedd yi pem néeg bu ñu fanaan sax nañ fa am benn bailleur de fonds bu ñëw di wër ci benn kër xale yi bari fa mu ne ko ñii ñëpp fu ñuy fanaan mu ne ko ci sama néeg bi te amul de benn néeg la luye mu ngi six xale ci benn néeg bi lay tëdd ak jabar ji ak doom yi kooku moom mënut a concevoir ne ñii ñëpp ci la ñu tëdd mun ne ma chambre bu nekk ñaataa fay ne wala kër bu nekk day nekk dugg ci kër fekk fa ay cinquante personne benn néeg dix personne donc loolu lu ko loolu lu ko fii rek la am. te ko période Covid bi surtout couvre feu bi. taxoon na bu bëri. ñu bëri quand même booy doon révolté parce que ñu ci bëri ñu woon xëy tëju ci benn kër. mënuñ ko mhm. surtout ñun daara xeex nañ ci ci Covid bi. Mhm. Euh, bi ñu ñëwee ànd ak suñu maire mu oo daara yi. y'a cinq daara à Grand Yoff mu jël leen indi leen dajale leen maire ba jox leen dund ñetti weer dem leen toog bu xale yi génn. mais damay toog sama buntu kër gis xale yu romb ma yoratuñu pot de muus la ñuy yor pour bañ ñu xàmme koo ci ne ko eekaay eh, mu ne la dañ maa yónni te fekk taalibe la ñooy leen tëye leen xale yi ci kër gi feebar bi dafa bari te lii dafay gën a yokk mais fii moom dangay wax a wax ba boo waxee ñu ne dangay xeex daal nga wax ñu ne bëggoo xale yi xale yi yalwaan la ñu xam dëgg la te ñun ay doomi daara lañ ci kër yi daara lañ juddoo ci lañ yaroo kon bañ mënuñ koo bañ mm-hmm. mais les normes la ñuy wax mm-hmm. bañ kenn loru ci yow sëriñ bi doo ci loru xale yi duñ ci loru te dinañ am santé bu baax dund dund bu baax te du mm-hmm. tee dinañ am xam-xam boo xam ne dina mën a jëriñ leen ëllëg jëriñ population bi donc loolu madame euh, Diabou euh, yéen en tant que bàjjenu gox parfois tam euh, si yenn programme surtout wàllu santé de la reproduction da ngeen ciy gën a dox maa duñ ñàkk am ngeen ay waaw ñun lool nag moom moom presque mooy suñu liggéey ci pàcc boobu ñu ngi dox lu bari. Euh, planning familial nag nit ñi ñoo ko gisee benn côté mais danga dem ci ñoo xam ne di nga toog ak sa seen jëkkër expliquer leen clairement ñu nangu. ndax dañuy xam exactement ndax yow li ngay planning bi yow li nga xam ne mooy euh, sa doom ak sa jabar dinañ wér. sa poos wér. nga boo fa jëkkee rek nga xam. sa jabar ak sa doom dinañ wér sa poos wér. ndax bu fekkee ne nekk gi la. coono dikk na feebar ba dikk na. ordonnance yi ñëw nañ su fekkee fexe nga ba nga def distance diggante doom ji kenn newul na dem rek continuer di planning mais même ci alxuraan sax am na fu ñu ci wax foo xam ne wax nañ fa nga war a nekk te bu jëkkoon nan lañ daan def. dañ lay yóbbu mag ñi sax dañ daan jóg dem di ñib dem seen i kër. di fa toog ji pour pour ma nàmpal fa ndax mm. loolu pour sa butu dellu si waat nga toog loolu yàgg nañ ko def te pourtant boobu gisewuñ ko woon mais ñi xañ ñi nga xam ne dañ nga di xañ ñu ñu dem toppatoo seen wér-gu-yaramu mangoog mm-hmm. non bari na bari na ñoo xam ne ñoom ñun dem nañ benn benn parce que ñu daan def bi suñu pla suñu euh, mbootaay gi maa ngi nuyu au passage sama euh, madame d'enfant dañ daan dem par quartier quartier di fa di ba waxtaan sa à dire bàjjee ñëpp dajaloo fenn ñun ñëpp ñu toog teg suñuy baaful def suñu musique mm-hmm. teg woo jigéen ñi di leen wax ci planning familial mais am na benn góor goo xam ne Grand Médine la woon keroog ñun keroog ñun ñëpp dañ doon yuuxu mm-hmm. yow daal mën noo wax nun ba pare te chef de quartier la te góor gi waxuñu loo xam ne ñun suñ ko duggee ñun ñoom dañu suñ dañuy bëgg a dagg suñu yàpp yaram bi yéenay yàq jigéen ñi yéenay nangam ak nangam ñi ñàkk ngeen ko moo tax ngeen déglu c'est-à-dire dafa ñoo xam ne dañoo am ay idée arrêté mm. yoo xam ba ci xalaat bu bon soo ko dee xalaat mm-hmm. da ngay defe ne planning familial ci boobu la jëm mm-hmm. c'est que nag xam nga bu fekkee da ngaa ni nekk góor goo xam ne tamit saawaay tam da ngay nit koo xam ne toogoo mm-hmm. da ngay defe ne li ngay jëf la sa jabate jëf loolu kese la mais ñenn ñi dañ defuñ ko lu dul seen wér gu yaram seen wér gu yaram doom ak seen poos yi yaxanal seen poos jëkkër parce que am na ñenn ñoo xam ni ñu koy juree métti na métti goo xam ne ni ay euh, président wax du jeex du xaaj fii ci suñu quartier ay néeg yoo xam ne yow yooyu doom yow ñëw nan nga leen def ba dundal leen yàlla ku gémmuñ gu gu gu ñu yàlla xar def ci dund loolu kenn waxatu ko mais dafa am foo xam ne fi mu ne nii dañ cee tolloo tut il faut que ñu organiser wu à ce que xale yi mën a mën a seen boobu mucc mën na liggéey mën a jàng mën a nangam ak nangam il faut loolu nag boo boo dee da nga koo tegale tegale su fekkee ouverture des classes da nga am juróom benn xale yoo xam ne yaa ngi leen bëgg a jëndal kay bëgg te sa sa yëfu matewul dafay metti dafay metti trop trop trop il faudrait que ñu xam ne planning bi nekkul lu dul looloo tax ñu di ko def mais defuñ ko pour lenn pour nit ñi bañ a jur ak nit ñi bañ a am ay num te loolu yëpp waxuñ ko mais dama ngay wax ne gis nga Sénégal gii yow da ngay def rek de dafa tax li nga war def nga def ko mais sinon chaque jour que Dieu fait ñun bàyyi loolu la ñu dégg lu ne mm-hmm. da ngay dugg ci foo xam ne boo fa tuddee pale neng fooy doo ta ko waxati mm-hmm. ci biti ka jëm mm-hmm. waaw yéen sof ngeen bàjjoon gox yi ah yéen dekk bi rek yàq jigéen ngeen fi nekke nanga mekaan te yow fi ne liñ la ko waxee boo tegloo ba déglu xam ne liñ lay wax defuñu ko bu ci jàmm parce que yow yaa moom sa kër yaa ko yor yaa leen di dundal boo liggéey say doom màggee di la jëriñ yow lay jëriñ du jëriñ bàjjen ma ndax bàjjen ba dëkkoo eh, da ngeen dëkk rek waaye doo fa jël di ko joxe ci dara ndax moom mais nit ñi ñoo comprendre yenn yi mais planning familial wax dëgg yàlla lu mën a lu war a nekk la. Mhm. surtout am jigéen ñoo xam ne ñoom seen bourse la metti xale yi nag ñoom léegi <laughs> ñooñu ñoom fi mu ne ñi intellectuel yi fi mu dañoo vacciné. Mhm. ñoom problème violence violence ne ko xalaatuñu ko sax mhm. du leen dóor balaa nga ne ñu romb la ñoom dem seen yoon ndax dañ naan li nga mën mën naa ko ndax dañoo jàng li jàng ba xëy yore seen i diplôme dem ci bureau ñu di leen fay ku fi toog ñu di lay dóorati yooyu ci ñoom maam sax ñenn ñi defatuñ ko waxuma léegi mais ñi nga xam ne nag amuñu euh, cislaay amuñu fu ñu wéeru amuñu ku leen dimbali ñooñu ñooy mettit bi ci dëkk bi ndax fu ñu bëgg a amuñu fu ñu jëm amuñu fan la ñuy nekk dañuy def seen doom yi naka su ñoom mënuñu ko ñuy jàpp seen seen seen ñoom ci seen bopp di leen def yoo xam ne mënuñ ko amuñu fu ñu wéeru daal mooy problème mm. état daal xam naa war na ci wut ay nu mu mm. aussi tamit xam nit ku waxut li ko li ko li ko naqari ko mën a saafara noo koy dimbale mm-hmm. Mm-hmm. mbaa bu la waxee ne la bu ko kenn mooy mooy métti bi da ngay mu ne waaye loolu bàyyi rek ñu bàyyi ko noonu man boo xam ne fii lañ ko bàjjana moo ko indi fi man jamono naa maison de la justice pour lijjanti ko waa ji koo ëmbal waxuma dara soo gisee xale bi mineur la de mu ko ah ñu jàpp waa ji jàpp ko def nañu lépp ay côté yëmbal yooyu la. bàjjen bi la ñu rawale xale bi indi ko fii mais pour te dire que ne waa ji dañ ko tëj quelque temps rek ñu indiwaat ko ñu génne ko. léegi nag bi bàjjen waxee ma ne nañ def procédure man man dama cee mujj sama yaay ma tey nga cee génn génn ci lii parce que ñii bëgguñu comprendre doo comprendre. mboo gisee xale bi nu mu toll ak nu mu dawee ak nu mu tuutee toujours bàjjen day am ay toujours bàjjen bi day am ay problème te moom papa ji ñoo bokk benn baay mënu ko def dara te moom tam fu jógee rek ci mën la jëm. pour ñu def ay analyse dafay métti lépp dañ koy kulo kulo xam nga tam. ñu leen di violer dañ ko war a topp ba mu sës. waaw doo jël sa doom rek bàyyi koog nit ñuy def du n'importe quoi da dem ci justice lu mu la may nga jël. waaw mooy dëgg. dëgg la waxtu wi daanaka dab nañu nag ndax am na yeneen programme yu ci topp xanaa a wax le mot de fin ak lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee xëy na solution dina am. waaw euh, Fatou fu ñu terminer tuuti mooy euh, planning bi ñu doon wax léegi. Mm-hmm. Euh, planning familial sorianto njur ci la bokk. Mm-hmm. def traitement infection yi. feebaru mm-hmm. sëy ci la bokk. ak traitement pour am doom. donc kiy def traitement pour am doom. ak di sorianteel njur kooku du def lenn loo xam ne jigéen bu subaa du amati doom kooku am na leneen lu koy xaar day gën a yokk liggéeyam mm-hmm. donc nañ sorianteel njur bi beneen bi mooy jigéen itam nañ leen dimbal di leen jàppale mm-hmm. nañu jàppale jigéen ñi violence bi metti na. muy physique muy verbal lu mu mënti doon. Mm-hmm. économique jor jigéen joxoo ko dara. Mm-hmm. mais may ko jàmm may ko salaam. Mm-hmm. nañ jàppale jigéen ñi jàppale xale yi. yàlla sàmm ñu aar ñu. musal ñu si mbas mu jige fi ak jàmm salaam ku nekk jël say matuwaay di takk sa masque. di laal sa gel. ñu moytu regroupement yi. ñu kontaan ci invitation bi. di remercier sunu maman yi. merci beaucoup jërëjëf madame la présidente. kontaan rek. parce naa ne problème mu jigéen ñi violence yi du jeex. Euh, man fi may daanalee rek xëy na wax nañ violence bu faite aux femmes mhm. ci njureel bi ci covid bi ci lépp mais dafa am beneen aussi bu desaat xam naa beneen yoon dinañ ko laal muy excision aux jeunes filles mhm. yoo xam ne ba léegi dañu fi bu mu fi loolu mhm. aussi war nañ ci taxawaat comment doon nañ ko fi liggéey ba wàññeeku mais ba léegi loolu mu ngi fi donc may gërëm jigéenu Grand Yoff fi les groupements de femmes ak fu jigéen nekk maa ngi lay gërëm di la sant te ak taxawaay bi ñu am ci biir Grand Yoff taxawaay bi ñu am ci biir kër yi taxawaay bi ñu am ci biir Covid aussi euh, maa ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen encouragé te di wax na nañ jóg taxaw amuñu lu may suñu njaboot amuñu lu may suñu kër amuñu lu may suñu réew amuñu lu may suñu dëkk kon nañ leen gën takkuwaat taxaw pour que jigéen am gëdd bi mu war a am jigéen violence bi tamit may la def appel au chef de l'État ci ci ci sécurité bi au côté des femmes mm-hmm. aussi loolu aussi nañu ci jàppale dimbalañu parce que jigéen ñu sonn nañ leen ci rey bari na na ñi mhm. dee bari na laago yi bari ci ku coono bi daal bari na ci jigéen ñi daal mhm. ñu ngi laaj ndimbal daal di ko ci ñaan jërëjëf xanaa di remercier au passage sama euh, présidente mhm. ak euh, sama sage bu ñaawul bi tabarkal allah ni jàpp di remercier waa Afia yi nga xam ne amul lépp loo xam ne day xew te boolewuñu ba léegi amul fu ñu woowul yenn saa yi sax toog rek ñu woo la téléphone laaj la ba xam ci nga nga nekk la gaa ñëpp nag ngeen nekk ci ci ci ci ci euh, nan ngeen def nit ñi nan ngeen defee ci sensibilisation bi yooyu mu am solo ñu ci remercier bu baax. Mm-hmm. Euh, la la directrice Penengaan su di ñaan tam rajo bi yàlla na doon télé ci daraje Seydou Diop. Mm-hmm. vraiment nekk na fi mais yàlla na doon tele ba ñun ñëpp ñu mën ci taxaw lu bare bare. ah di remercier nag sama bàjjen yëpp yi nga xam ne ñoom tam ci Covid bi. Mm-hmm. def nañ seen kenn talaay kap mais suñu maire jàppale ñu bu baax nag. macha allah téye ci bu baax. baax a baax ba ku nekk gis sa bopp mm. ah di ñaan yàlla rek mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla nañ bokk ci ñu koy nettali ndox mi ñëw yàlla na yóbbu lépp <laughs> ba nga xam ne ñëpp dinañ dellu siwaat ci li ñu nekkoon mm. te du am benn problème di la remercier bu baax maam Fatou di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk di ko jaajëfal moom Diabou uh, Touré di présidente bàjjenu gox yu bu Grand Yoff uh, di remercier également madame la présidente de réseaux uh, réseau femmes de Grand Yoff di Nafi Diawara ma jigéen Njaay di sage euh, femme nekk ci maîtresse sage femme nekk ci sant Elisabeth bu Golf euh, ñu koy remercier bu baax di remercier Ajaratu Koura Seck ak euh, Khadijatu Sakho di président di secrétaire général AGSPD Ajaratu Koura mooy coordonné li nga xam ne moo di projet bi di voix pour la santé ñu leen ci remercier lii nag newoon li nga xam ne moo di émission bi jëm ci campagne à jigéen ak campagne digitale à jigéen ñi ñu lancé ko nag depuis presque un mois ngir rek dimbali jigéen ñi ñu wàññi li nga xam ne moo di violence faite aux femmes euh, AGSPD lëkkaloo ceeg rajo Afia FM di remercier également Bas mi nga xam ne moo yoroon euh, nekkoon ci réseaux sociaux bi pour euh, diffuser mbir mi di leen jëfal ci déglu bi di leen dig daje ci yeneen i jëmmi jamono.